ñuy dem jëliwaat euh, Ismaïla Seck baal leen ma rek ma jëlaat Ismaïla sekk parce que am na lu mu war a compléter par rapport ak récit bi mu ñu defal léegi nii donc Ismaïla yaa ngi waat en direct ñu bàyyi la waat la ak mbokk internet yi. waaw maa ngi maa ngi jégaluwaat ngi j'ai insisté pour duggaat. dëgg la euh, parce que dafa am information boo xam dama ko bëggoon a partager mais dama ko fàtte sànq mooy le cas de Adji Sarr. d'accord yow rek lañ ciy déglu. Euh, Adji bi ñuy Sénégal xam nga ay autorité ñoo ko génn Sénégal yóbbu ko. Mhm. jaarale ko fi ñu ko jaarale jaarale ko mu wàcc France avant muy dem si jaara fi mu jaar yëpp nag mais ñoo dañu ci def benn cuune boo xamante ni moo tax problème yi ñu ci am tey jii nii yëpp ñu am ko ci parce que ci Union européenne wala ci espace Schengen dañu am lu ñuy woowee euh, procédure de Dublin mooy bu fekkente ni yow da nga nekk daw làq maanaam koo xamante ni réfugié nga. Euh, nga bëgg euh, ñu may la euh, asile mhm. dëkk bi nga xamante ni bi nga quitté sa réew dëkk bi nga wàcc dëkk boobu noonu rek nga mën a demander asile te aji Sarr bi nga xam te mu ngi jóge Sénégal France nekkul woon destination donc dafa jaar France pour de escale après continuer malheureusement nag pour ñi nga xam te ñoom ñoo ko jëloon pour yóbbu ko bi ñu wàccee France ba pare bëgg a dem demande d' asile bëgg ko def Suisse dëkk yi li ngeen xamal mooy loi bi li mu leen permettre mooy pour pour nga def demande d'asile réew bi nga xamante ni foofu nga wàcc foofu rek nga mën a def demande d'asile loolu moo tax Adji Sarr mu ñëwaat France mais France nekkul woon destination parce que gis nañ ne France dëkk boo xam ne nii communauté sénégalaise dañ fi am doole trop te fi nekkee xëy na mën na am du nekk ci sécurité loolu moo tax mu ñëw euh, dellusiwaat France parce que mënul am mm, asile ci beneen dëkk. amul beneen dëkk boo xamante ni tey ci Europe mën na fa am asile à moins que ñu changé loi te yaakaaruma ni jëmmi aji sar mën na tax tey ñu changé loi donc procédure de Dublin boobu noonu moom moo tax aji Sarr mënul def demande d' asile ci beneen réew bu bokkul ak réew bu France ndax fii la wàcc bu ñu jógee Sénégal door a dem ci yeneen dëkk yi xam te ni jaar ma ko donc moo tax fépp foo xam te tey def na ko euh, pour def demande d' asile dañu koy rejeté waat dañuy rejeté waat demande boobu noonu. donc loolu moo tax mu ñëwaat France tey jii nii euh, bëgg poursuivre li xam te moom moo nekk dossier demande d'asile am noon noonu dina ko am ndax wala du ko am nag xëy na euh, situation politique bi tey li nga xam ni tey moom def na ko Sénégal yëpp ci ay njombe ak li nga xam te moom moo ko war a xaar yi bu delloo Sénégal ak itam li nga xam te amaat na ci ay comme ni nga ko waxee léegi dikku Mélenchon biir Sénégal ak yooyu mën na nekk tey loo xam te dafay nekk faveur ci moom ba xëy na mu mën a am euh, loolu di demande d'asile boobu nag mais information bi mooy daal bi ñu koy jëlee Sénégal di ko yóbbu tugal France nekkul woon destination bi mu dañuy jaar France jaar France moom nga xam jaar nañ ko France nag moom moo tax tey jii mënul def feneen demande loolu di wane waa rek cuune ñi nga xam te ñoom ñoo ko jëlee Sénégal doon ko daawale te ñooñu noonu am na ci kilifa yu mag yoo xamante ne tey wàllum diplomatie la ñuy liggéey wàllum euh, dem ak dikk bi moom loolu moo nekk seen spécialité kon tey bu ñu defee yëfu cuune yooyu noonu ci dossier Adji Sarr bi dafay wanaar rek ni que ñi nga xam te ñoom ñoo doon gérer Sénégal ñoom ñoo ñu doon gérer amuñu xam-xam bi xam te moom moo ci waral maa ngi jégaluwaat nag bu baax a baax ci duggaat bi donc je juste partager cette information. macha na solo bu baax a baax parce que lii nga ci wax nii dafa am solo pour nga leeral ko askanu Sénégal bu ko defee aussi ñu am xel xel mu daal parce que sànq nii maa ngi doon wax naan à 50 pour cent amul sax. Euh, kii pour am asile bi far yàlla gën nga ko leeral gis nga seen cuune bi mu toll gis na seen ñàkk xam-xam fi mu toll te Adji Sarr moo ci deewe rek Adji Sarr moo ci deewe rek ku ñu utiliser la te utiliser wuñ ko ci dara lu baax beneen bi mooy ci liñ koy utiliser ñoom sax dañuy dem ba di ko di ko soofantal parce que seen xam-xam màccu ci jëmu ci te euh, xëy na bëgguñu ko sax jàppale ci yenn yi dañ ko bëgg a enfoncé gën a enfoncé ci yenn mbir yi di ko utiliser rek comme mos fëgal kaay patate chaude parce que tey Adji Sarr képp koo xam ne da ngay ànd ak moom amul kenn koo xamante ni ñi nga affiché wu ak moom ànd dox ci mbedd. amul jii nii nga war ko bëgg nga fenn ak yoonam da ngay muuru wala moom amul kenn koo xamante ni ñi nga affiché wu ànd ak moom donc je pense que aussi responsabilité ay parents aussi war nañu war nañu waroon nañu koy interpellé waat xool tey jii ñoom euh, seen doom euh, ci lal lañ ko dugal ci lan lañ ko bàyyi mu dugg ndax itamit jotul ñu même bu fekkente ni. tey dafay metti wala ñu mën di demee hmm. jotul ñu assumer seen i responsabilité jàkkaarloog Sénégal yi ne leen tooñ nañ leen ba fa ci kanamu yàlla tooñ ñoo créé situation bi mais ñu ngi leen que ne tey ay parents bu fekkente ni bëgg nañ seen doom dëggantaan yaay war nañu mën a toog nag ñu jàkkaarloog askanu Sénégal assumer seen i responsabilité jéggalu askanu Sénégal hmm. dëgg la donc maa ngi leer na ma bàyyi la doxal d'accord gën na leer macha allah. jaajëfal nañ la bu baax a baax a baax Ismail euh, euh, Seck ñu daal di rek ñëwaat euh, ci yenn ci ay commentaire waaye itam ci ñenn ñi nga xam ne ñu ngi nekk di commenter boobu ba tey bokk na ci bàcc Sarr nee na merci Thioré Thioro coupeel dof bi ay waay <laughs> noonu dof sax day wax xalaatam rek donc bu fekkee lu ñuy partager la ci yar ak teggin ñu wax ko ak moom. Euh, Zorcid Z Zorcid Z euh, nee na bul bàyyi benn mbaam mu di la imposer noo euh, waaw yaa am gën a xam daal du ñu bàyyi moom kenn mu ñuy imposer li mu bëgg parce que fii moom teraanga rek lañ fi lañ fi wax ak loo xam ne day jëmale Sénégal kanam duñ ci wax de benn wax bu ñagas moo du njaay maa ngi lay nuyu Aji Dieng maa ngi lay nuyu bu baax a baax Mbacke Mbeng nuyu naa la sopp na bi maa ngi lay nuyu di nuyu ki nga xam ne moom moo di Euh, Seydi Sow from LG euh, Louga Toualam maa ngi koy nuyu bu baax a baax Isma Ba maa ngi lay nuyu Val kam maa ngi lay nuyu bu baax a baax Bàcc Sarr nuyu naa la Binta Balde comme d'habitude maa ngi lay euh, ziar bu wér a wér a di ziar ki nga xam ne ni moom moo di Dolex and Co Dolex maa ngi lay nuyu Taala Gueye nee na coro deel wuyu téléphone bi ay waay Taala pourtant dama koy wuyu appel yi ñoom ñooy bari lool lool lool te loolu lépp rek moom mooy Euh, ñi bëgg a dugg moom moo ko waral bëgg a joxe seen xalaat waaye itam li ñuy def ci liggéey bi la bokk looloo tax ñuy bëral li nga xam ne moom moo di euh, live yi di ko def deux jours ba deux jours euh, pour di mën a jël léegi nag ñu ci li li ñu insister moom mooy man sama téléphone comme ni ma koy waxee à chaque fois ku ma woo jox ma sa tur wala nga message ma jox ma sa tur dinaa la tontu damay enregistre sa numéro bind ci sa tur heure boo ma woowee ak waxtu bu mënti doon dama lay wuyu te sa tur laa lay woowee directement euh, dont gisante wuñu mais man à chaque fois damay bëgg a familiariser wu ak ñi nga xam ne ñoom ñooy woote parce que ku am euh, euh, crédit di la woo am connexion di la ci woow li nga war a def moom mooy wuyu ko saafonte ak moom sottante ay xalaat te li ñu war a def mooy sottante. yow bokk nañu liggéey. dama doon def ni weekend fu mu jotee ma dem diggante Colobane Petersen may jënd foofu noonu soo di di ko jaayaat di def marchand ambulant foofu moom moo nekkoon juute ci trois cent franc lañ doon fay juuti par jour bu ñëwee danaan la da nga koy jox cent franc léegi moom du la daggal du la daggal euh, reçu léegi cent franc bi daf koy jël dugal ko ci poche am boo ko bañee jox cent franc boobu noonu daf jël yóbbu la ci agent bi nga xam te moom monte ci rond point bi ñëwee ba foofu noonu mu ni da nga bañ a fay juuti daal di jël euh, ticket mën na jël dix ticket ne la loolu ngay fay muy trois mille franc da ngay obligé nga fay ko boo ko fayul agent bi mooy nangu sa marchandise yow ba keroog ngay fay trois millions noonu wala plus que ça dama am benn jour ma dem benn euh, couverture médiatique ci benn manifestation. Mhm. le ministre de la jeunesse à l'époque Mame Mbaye Niang war a ñëw foofu noonu man Mbaye Niang bi mu ñëwee en tant que journaliste maa ngi taxaw. ñu ne ki nga xam te moom moo yor protocole bi moom moo war a jàll xam nga kan moom moo doon gérer protocole bi moo nekkoon ci kanam Mame Mbaye Niang pour gérer protocole bi. su hmm. même monsieur bi xam te moom moo ñu doon nangu suñu cent franc foofu noonu ci Colobane bi ñuy jaay boo boo boo bañee mu dem yóbbu ci agent bi ne la da nga bañ a fay juuti agent bi daggaloo la daggal la nga fay ko plus que ça. kooku juuti boobu moo yoroon protocole ancien ministre de la jeunesse. <laughs> exactement. toog naa ba ci jamono yi ni bu yàggul ma gisaat photo la même personne ñu wone ko ni moom dafa bokk ci recruteur de nervi yi ma ne kii bu ñu ko jiiñee recruteur de nervi man du ma ko weddi parce que personnellement dund naa ak moom loo xamante ne ni loolu la donc mu nekk ay ñaawteef yoo xamante ne ni kenn mënu ko natt xoolal li nga xamante xaw amoo xamoon xewoon na fi yoof li nga xamante am na ay jeunes yu doon jàmmaarloo ak takk der yi gannaaw ba ñu bëggee jaay doole nangu seen suuf am koo xamante ni dañu ko faat ministre bi nga xam te dafa génn ci saasi li ko faat mooy Elisu Gaal man dem naa géej Joal laa juddoo Joal laa yoroo Elis fi muy nekk ci gaal ba war a jam nit ba mu dee loolu kenn kenn gisu ko ana loolu fan la mujj tey mujjul fenn. Mhm. ñi nga xamante ni faat nañ leen ci régime Macky Sall ñooñu ñëpp mujjul fenn ay ñaawteef yoo xamante ni te li nga xamante ni nit ñi xam nañ ko moo moo gën a néew fuuf nga xamante ni nit ñi xamuñu ko c'est des crimes yoo xamante ni dañu ko war a teg sur la table xamal ko àdduna ñëpp Sénégal yëpp war a constitué wu victime parce que tous les Sénégalais sont victimes de Macky Sall te tey jii nii loolu ñëpp ñoo ko war a doxal ñëpp ñoo ko war a waxee pour que tey mu desuwaat ci biir réewum Sénégal haute trahison mënta weesu ñu fal la président de la République à deux reprises nga toog nga naa ci seen biir réew mi jourtel bu ngeen falul président de la république au premier tour dama leen di bàyyi seen réew dem sama yoon parce que man am na beneen ndombal tànk buñ ma jox manque de respect foofu la mën a yem tey jii nii bu fekkoonte ni dañu dem tey deuxième tour ci élection présidentielle moom mu daal ne dem na yoonam bàyyi ñu fi président assemblée nationale kooku am xemmanteef ci nguur gi bëggal la bëñ carte gi dinañ dugg xam ne lay nekk te bu boobaa moo ñu ko yebee dolli waatal ñu ci musiba yi nga xam ko fa Comme c'est plus que jamais le temps, c'est plus que jamais nécessaire pour que tous les Sénégalais se constituent victimes de Macky parce que crime yi nga xam te def na ko ci def na ko ci Sénégal daf ko war a fay te ñëpp ñoo ci war a xeex boobu noonu à nos nouvelles autorités parce que ñoom itamit euh, dañu ci ñoom am benn gis-gis boo xam ne am nañ ko ci ñoom mooy ñoom ñoo war a taxaw aussi ci combat bi parce que tey li Sénégal yi déterminé déterminé wu te y a pas de yaakaar naa ne xeex bi mën na soxe c'est à nos autorités nag tey ñu topp président Macky Sall parce que leçon lay doon ci beneen président de la république boo xamante war nga ñëw ci Sénégal nga xam ni boo defee lu la neex doo am ciiraay loo xam ci mooy tax da nga dem après di tabax sa château Maroc wala nga tabax ko France nekk Versailles wala beneen réew bu la neex di dund lu la neexee c'est trop facile tey jii nii fi nga xam te ni foofu laa war a duggaat tey sama intervention mooy les rapports di ñi nga xam te mu ko mu nekk cour de corps de mu nekk euh, Cour des comptes. yooyu mhm. lay rapporté li ma ko waxee ci njël boon mooy président Macky Sall moo ci tegoon coñ-coñ président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi mu ñëwee def ne nañu nañu déclassifié euh, rapport yooyu noonu rendre ko public bu ko defee askanu Sénégal ñëpp xam lan moo nekk ci yooyu les rapports ba mu amee gis nañ njombe yi nga xamante ni am na ko ñenn ñi def nañ ko fi te nag dañuy rek euh, pour jukki leen ci benn rapport rapport bi nag bu Cour des comptes sax moom ko def benn euh, kër goo xamante ñoom tamit ci wàllu audit la ñuy yëngatu ñu di ko woowee ànd ñoom ñoo def boobu lépp euh, rapport génne ko ci benn kër bu tudd promise ka nga xam te ne moom moo ko jiite woon ci atum deux mille dix neuf parce que rapport bi mu wax ci atum diggante janvier deux mille dix neuf ba trente et un décembre deux mille dix neuf ka xam te moom moo nekkoon jiitu kër googu di tudd promise moo tudd yaay euh, Fatou Diagne yaay mhm. Fatou Diagne ñu bari xam nañ ko Sénégal donc euh, maire la tamit moom la ñu tegaloon kër googu naan parce que gouvernement bi nga xam si moom moo fi bàyyi ko nag bu la bëggee euh, récompenser sur le plan politique boo xamul nu mu la def mënu la fal ministre mënu la fal kii dafay créer benn agence boo xam ne nii moom lay jël ut benn budget bu mu fa dugal ne la yow yaay directrice agence boobu noonu war a yaay coordonnatrice bi mu nekk ce qu'on appelle des institutions budgétivores yoo xamante kenn xamul ba nu mu toll ay xaalis yoo xamante ñi nga xam te ñoom ñoo ko doon jiite euh, lu leen neex lañ ko doon jëfandikoo donc ma présenté leen tuuti rek kër gi nga xam te moom mooy promise pour ñi nga xam te ni xamuñu ko li ko yëkkati nag moom mooy fexe ba lépp loo xam te ñeel wàllum finance bi bàyyi ko ci banque islamique de développement jël ci wàllum euh, entrepreneuriat wala ci yenn coopération yi mu mën a jot ci ñi nga xam ci ñoom ñoo nekk population locale bi wala ñi nga xam ci ñoom ñoo yëkkatu yëngatu ci wàllu microfinance mm-hmm. donc kër googu bi nga xam ne ko euh, defaree ci biir Sénégal donc dañu ko yëkkati rek ngir daal di accompagner ñi nga xam ci ñoom ñooy yëkkati ci wàllum microfinance dans le cadre juridique di leen amal ay tàggatu waaye tamit ba ñoom ñu comprendre li nga xam te moom moo di finance islamique bi ndax bokkul ak peut-être yeneen xeetu finance yi nga xam te ni peut-être taux d'intérêt wala lu jëm ci euh, yeneen euh, boole bi ni nga war a fay yooyu noonu mën na wutale donc ñoom dañ leen di amal ay tàggatu ci mbir moom gën leen xam ne waaye tamit euh, euh, def ni nga xam te moom la ñuy wax renforcement des capacités sur le plan institutionnel ci wàllu microfinance ba léegi améliorer yi tamit qualité de l'offre de service bu xam bi nga xam te ni moom bàyyi ko ci banque islam tamit yeneen kër yoo xamante ne nii ay kër yu yëngatu ci wàllum finance islamique la donc loolu nekk ay mbir yu bëree bëri yoo xamante ni kon hmm. moom la ñu dénkoon boobu le kër bi ñu ko dénkee kër googu noon nag moom soxna yaay Fatou Diagne Euh, diggante janvier deux mille dix neuf jàpp décembre deux mil dix neuf comme ni ma ko waxee léegi bi nga xam ci kër googu nga xam ci moom la ñuy woowee Ado def na lii di auditeur mu ne dafa bëri ay koppar yoo xamante ne nii la ko taxoon a jóg ak fa nga xamante ne nii soxna si Ndiaye Fatou Diagne dugal na ko fa ñu ne wute na lool dara bokku ca. Mhm. ba tax na kon ñoom ñu daal di gis ni kon dafa am li ñuy woowee détournement d' objectif. maanaam xaalis bi li ko taxoon a jóg ak fan koy yóbbu du benn te loolu noonu mooy li nga xam te moom la ñu toppee ay ñu bëri bëri ñu xam te ay directeurs généraux ay société la ñu war a yeneen donc ci biir rapport boobu ñu gis ci ni kon moom adoog moom kër gi xam te moom moo def audit bi euh, mu ne moom maire bu ngàcc nawnde boobu noonu di ay faatu Diagne donc dépensé na lu tolloo six cent millions de francs CFA maanaam juróom benn téeméeri millions ci suñuy koppar yoo xamante amul benn justificatif maanaam amul reçu amul facture amul lenn luy wane ni moom xaalis bi dépensé na ko lii la ci jënd fii la ko dugal ak nii la demee loolu la rapport bi wax ñu ne tamit document yi nga xamante ne ni kon euh, kër googu la daal dina koy bëral am yoo xam ci jox na ko presse bi ñu ne bu demee ci benn compte bancaire boo xamante ne ni kon ci banque islamique de développement ñoo ko moom te mu nekkoon compte boo xam te ni dafay jokkalante seen diggante ak kër googu nga xam ni moom moo di promise lañu ci fësaloon ci ay yu euh, toxtal soixante cinq mille trois cent cinquante quatre francs loolu noonu moo nekkoon li nga xam te ni kon moom moo nekk ci compte boobu noonu ak dépense yi nga xam te ni kon wax nañ ni euh, moom moo nekkoon situation financière bu PRODES ñu ne nag li nga xam te ni moom la ñu gis nag moom moo fa jógee dëggantaan jaay moom la ñu dépensé dëggantaan jaay toll na ci cinq cent soixante cinq million neuf cent vingt neuf mille quatre cent quatre vingt deux francs CFA loolu la vérificateur yi nga xam te ni ñoom ñoo demoon pour def audit bi daal di gis foofee noonu donc ñu ne tamit ba léegi dépense yi nga xamante ni kon engagé nañ ko ci compte spécial bu banque islamique de développement boobu noonu toll ci cent trente trois millions cinq cent trente trois mille cent vingt trois francs CFA ci période euh, ak solde de compte bi nga xam ci toll na ci soixante six mille soixante six millions quatre cent euh, soixante six mille huit cent soixante dix sept francs CFA ci 31 décembre 2019 bi nga xamante ne nañ ko par yooyu ci na nga xam ci noonu lañ ko jëfandikoo ak lan la génn ci compte bi ba dugg ci yeneen i kër yeneen kër gis nañ ni kon am na ci téeméeri million yoo xamante ne ni moom soxla si ni yaay Fatou Diagne ba mu ko jëlee ci compte moom noonu xamuñ fan la ko dugal ndax nag dépense yi nga xamante ne ni moom lañ wax ni def nañ ko ci amul lenn lu koy leen amul tamit lenn loo xam ni kon mën na tax ñu ne euh, daf ko dépensé ci cadre liggéey bi nga xamante ni moom lañ ko dénkoon. donc muy tubaab bi wax détournement d' objectif waaye tamit euh, ñu mën ko tuddee tamit détournement de fonds tout simplement parce que bu euh, jënd ceeb da ci war a def li ne nga jël ko nga ne leneen nga ci jënd ñu ne leneen nga ci jënd lan la nga ne xamoo ko ana facture yi nga ne amoo facture ana reçu amuloo reçu kon loolu détournement la mm-hmm. donc détournement d' objectif ak détournement de fonds mooy li nga xam te moom mooy kon kër gi nga xam te moom moo saytuwoon audit boobu noonu euh, di entreprise bu promise donc di di di agence promise gis nañ ko fa te cabinet ad hoc daal di koy def moo nekk kon gestion bi nga xam te yaay Fatou Diagne amal na ko foofee ci promise donc mu nekk beneen jiyee rek boo xam te dafay ñëw dolleeku ci téeméeri jiyee ak yu ko ëpp yi nga xam te ni depuis ba ñuy publier rapport yi corps de contrôle ba léegi ñu ngi koy gis jamono ji lépp donc ñuy euh, am yaakaar yi tamit ci bi nga xamante ni mooy jëwriñ ji nga xam te moom moo di Ousmane Diagne yor lu jëm ci wàllum yoon nee na rapport yi nga xam te ni kon fësal nañ ko ci biir penc mi yëpp yoon dina ci def na xam te ni moom moo ca war képp koo xamante ni taxe nga ci danañ la woo déglu la mm, bu fekkente ni da nga luubal nga indi la nga luubal bu fekkente ni tamit mënuloo ko indi yoon def la nga xam te moom moo ca war a teg la daan yi nga xam te ni moom la ñu war a teg ci sa kaw. ñu kon ñu amaale yaakaar rek ni kon xëy na euh, nguur gi nga xam ci moom moo fi nekk jéego bi nga xam ci ni jël na ko waaye tamit xàll bi nga xam ci ni rëdd na ko ngir ñu jaar ci dina mën a tax Sénégal yi dellu jotaat seen i koppar bu ko defee nag ñu mën a am naataange gi nga xam ci moom la ñu bëgg donc pour bañ a guddal rek xam naa ñi bëgg a woote bëri nañ te tamit li nga xam ci ni war nga ko continuer waat wax ko ndes euh, na xam naa dañu koy tënkee foofu rek bu fekkente ni amoo yeneen i laaj. macha allah li ma lay laaj rek juste pour euh, deux ou trois minutes mooy euh, d'après euh, samedi yii nii presque ça fait un mois nga ñuy liiral ay rapport corps de contrôle yoo xam ne nii état moom moo ko fi tegoon ngir ñu contrôler saytu alalu Sénégal ak ñu ngi koy dénk Ismaïla lii nga fiy lim yëpp ci ay doomu aadama yoo xam ne dañoo détourné ñii ay millions millions de francs CFA ñii ay milliards milliards de francs CFA tey ji yow ci euh, journaliste jàngat bi ngay def lan nga yaakaar ne tey jii moom la ñu war a mën a def ngir askanu Sénégal euh, nanguwaat seen xaalis boobu waaye itam dugal ko ci li nga xam ne moom mooy euh, lekk ak naan comme ni ma ko waxee fayal ni dinañ reetaanati pour ndóol ak insuffisance bi nga xam ne dafa jëmee ci wàllum insuffisance alimentaire comme ni ñu ko waxee lu lu ci mel ni yooyu yëpp ñu mën ko xeex. Euh, gis nga dafa gis situation bi dafa nekk loo xamante ni tey dafay interpeller directement su autorités yu bees yi fi nekk gis la président mack Sall bi muy door a jot nguur gi dafa ñëw mu ne euh, képp koo xamante ni bokkoon nga ci nguuru Ablaye Wade nga luubal xaalis di nga ko indiwaat daal di ciblé ay nit ñoo xam te dañ leen doon topp fësal ay information comme quoi kii sàcc na nangami milliards kii sàcc na nangami milliards daal di créé ko euh, décalaat cour bi nga xam ci moom moo nekkoon créé Sénégal yi dem ba ci digg gisuñu dara xaalis bi nga xam te ñu wax nañu ñii li sàcc nañ ko nii def nañ ko nii gisuñu ci dara am ci ñoo xam ni sax dañu dem rallier APR wala ñu rallier Benno Bokk Yaakaar kenn waxatul ci coow loolu dara tey loolu bokk na ci li nga xam te tax na yenn Sénégalais yi sanctionné